mbokk yi jër ngeen jëf seen ànd ak euh, télévision Futur Média ñoo am mbégte ànd ak yéen ci xibaaru marax yi di ko tàmbalee xibaar yi tiis yi ak euh, ca Thiès euh, kër Modou Ndiaye benn jàngalekat bu doon wuyo Alain Kali lañ fa jam ba mu ñàkk bakkanam benn agresseur moo ko def ana nan la mbir yi demee Cheikh Anta Diop say latir ci leeral. kër Modou Ndiaye dem nañ ci bërëb bi ñu faate kii di Alain Kali doon jàngale ci l'école bii di école Kër Modou Ndiaye ñu ngi fi fekk directeur bi di baaba Diop nee na de mbir mi da koo jële kaw bi mu ko déggee la fëx dem ci bërëb ba ànd ak xale yi nga xamante ne ñu ngi ci biir village bi mu jógee école parce que Kali day jàngal xale yi euh, cours du soir bi mu wàccee vers les cours de 18 heures di ñibbi di jaar raccourci bi parce que jasab ak Kër Modou Ndiaye am na yoonu suuf yoonu suuf boo xam ne moo gën a gaaw mënoon mu jaar si raccourci bi jaar si yoonu suuf bi nag foofu lañ ko foofu lañ ko agressé bi loo doon dox yàgg na emprunté yoon woowu nag depuis des années ñu ngi ko affecté Kër Modou Ndiaye depuis vingt deux ans di yaakaaroon naa ni sax dinaa fekk sapeur yi yóbbu ko bi ma ñëwee ànd ak waa xale yi village bi ñu ànd man ni ma fële la ma ànd ak ñoom ñu ñëw a ñëw a ñëw ba ci fi ñu ko defee bi ma ñëwee it maa ngi ko fekk mu tëdd boobu ñàkk na ba kenam parce que deret ji li génn ci moom dafa bari xam naa nag jombul dañ ko jàmm bëgg xale yi muy jàngal daan leen jàppale si seen jàng lan leen conseiller même ñi nekkatul woon école bi te nekk CM balee di laalaan sax dan daan ñëw ci école ba mu leen di conseiller lu jëm ci seenum njàng. magam bu jigéen moom it njàq rek tis la am mu feeñ lool ci kanam. bett ñu ñun bett na soxnaam. ala am na soxna waaw bu tudd Liliane ak ñeent bant. ku gën a mag ki fukki at ak juróom. waaw ku gën a ndaw ki juróom-ñetti at. assidu ponctualité loolu moom vraiment moom loolu moom jikkoom la. li koy prouver mooy moom bi muy soog a ñëw école abonné woon nañu benn oto oto bi di leen indi école mais oto boobu bi ñu ko abonné oto bi di leen tardeel ñu ñëw ay huit heures et quart huit heures vingt la ñu man lii du ma ci continuer daal di bàyyi abonnement bi. yoon def liggéeyam teg loxo ñi def ñaaw ñaawteef bi. Alain Kali mi nga xamante ne moom la ñu faat ci anam bu doy waar néew bi nag ñu ngi ko yóbbu ci hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène bu Thiès police bu ngent moom mooy yor l'enquête beneen xibaar bu tiis fële ca Kédougou la amee ña fay gas or ca Kumburun turu euh, di gox bu nekk ci commune Tomborom Konto euh, département bu Kédougou la euh, ba léegi foofu ñaari doomu Burkina Faso noo ñàkk seen bakkan ci gas or ba ñu doon gas foofu di ko wër di ko seet ba tax sapeur pompier tab yu Kédougou ñëw nañ fab néew ya yóbbu ca morgue hôpital régional Amath Dansokho bu Kédougou ñu àddu jëmale ci mécanisiens yi xëyee ca stade Léopold Sédar Senghor mer ba fut la ko waral dañ leen fa yëkkati ca peggu stade boobu ñu doon euh, daanee seen doole la ko waral mooy tabaski bii nu dëgmal dañu def foofu daral borom xar yi lañ fa xajal ñoom mécaniciens yi ne ñaar fukki at ñi ngi fa sanc nag lu nu mel mësta am ba tax ñi ngi koy euh, ñaxtu duy sàkku ñu indi ci euh, pexe nu mu gën a gaawee abi fay dem na seeti leen dañu leen dàq ci wërngaluk stade Léopold Sédar Senghor bi jox seen barabu liggéeyukaay yooyee jaaykatu xar yi ñoom mécanicien ñu ne dañu leen jaay doole waaye takku deree def li ni mel te tabaski gi jege si na ñoom seen xel ëlëb na xamuñu tuñu ana fu ñu jëm. lii ñu def nii ñun af daf ñoo arrangé wul parce que dañoo bàyyi ba tabaski bi jot te mois la tabaski ñu yëkkati ñu yàq suñu bagage yaa yóbbu suñu oto tere ñu liggéey. boo yëpp ñu ngi fii nii fi du dëgg dam nga xëy benn jour rek ñu ne ka jógal sa jëlal say bagage xamoo foo jëm xool booy ñu taxawee ñëpp a ngi toog fi jaaxle ba ñuy jëm. en tout cas gars yi chaque événement buy ñëw surtout tabaski di waaj a ñëw euh, day manqué un mois ak tabaski bi wala deux mois gars yi di ñëw di ñu ravager fii nii yëpp stade bi partout yaa ngi gis stade bi nu mu mel. moom mi mer ba fotu la def gannaaw ñaar fukki atuk yàlla gu muy tuuree ñaqam ci parkingu stade bi tey mu ne jaaxle na. mais état ñëpp a yem état yëpp a yem état yàlla na ma yàlla jégal Sénégal dañu respecté wul quoi respecté wuñ seen population ay ndaw yuy liggéey nga xëy ñëw yàqal leen lu bari jël oto yi yóbbu xam nga indi ñu beneen semence pour lan léegi na lay de te ñun ay góor lañ duñ sàcc duñ fen dañuy toog rek di lépp di ko yàlla rek. ñenn ñi ñoom ne xalaatuñu jóge fi. parce que xam naa boo jóge fi boo jóge fi. xam na nañu feneen pour pour pour foofu di liggéey dem liggéey amuñu feneen amuñu feneen fii kese la mën a liggéey fii kese. ñeneen ñi ci seen wet ne ay pexe mën na am ngir ñu am fa ñu leen dalal. a ah, ñu xanaa toog di xaar wuti feneen kese parce que état mën a wax ak moom c'est ça le problème. comme nag ñoom ñooy autorités yi ñoom ñoo ci mun dara ñun bañu ñu ñu wutal ñu fu ñu dem liggéey jox ñu gën a bërëb boo xamante ne mun leen fa daanu suñu doole quoi ñu bañ ñu def nii ñu def nii. lañu leen fi jëlee ñu ne yëfi yaama neex dong la ñoom ñi jéem a wàcc ci tali bi wane seenik mer baare tali bi ngir naqarlu lañu leen joxul kayit ngir firndeel ne dañu war a jóge fii jox ko jaaykatu xar yi waaye ñu ne noppi nañu ngir dem ca jam ñaajo daan fa seenik doole faw nag mu ànd ak droit de travail Habib Faye ñu dem addu jamale ci jàngale beeg euh, SAEMS syndicat bi euh, ànd nañ bokk gis-gis euh, ci li premier ministre siiwal ne danañu xoolaat nu ñuy def ba payoor yi ci fonction publique ñu tolloole ñi nga xam ni ñooy euh, xëy ci fonction publique boobu muy doléance boo xam ni ñoom syndicat jàngalekat boobu dañ cee yàgg taxaw ak euh, doon ko kaas El Hadj Malick Youm moom mooy njiitu SAEMS ñu teewlu ay kàddoom gannaaw laaj ak tontu gu dox digganteem ak Chérif Dia. dañu am fonction publique boo xam ne lu jëm ci wàllu payoor gi dafa am kumba am ndey ak kumba amul ndey muy maanaam dafa am tey ñu nga xam ne ñoom euh, ci biir fonction publique boobu. Euh, lu jëm ci wàllu seeni i payoor ñoom ñoo gën a maanaam féete suuf te ñu jàpp nekkoon loolu lu ñu war a jubbanti la ñuy wax nag nekkoon li nga xam ne mooy attente yi nga xam ne mooy acteur seen éducation am nañ ko ak syndicat yi mooy que tey déjà comme loolu amoon na benn cabinet bu ñuy wax MGP Afrique bu nga xam ne defoon na ci étude depuis 2016 ba indi ay solution kon ñun ñu ngi xaar rupture rupture bi mooy ñu jëmbal loolu nga xam ne mooy recommandation yi muy digle yi tukkee woon ci cabinet MGP Afrique bi kon loolu mooy tey li ñuy xaar mooy jubbanti loolu nga xam ne mooy inégalité yi ak inéquité yi ba nga xam ne kon tey buñ ko defee dana gën a indi fonction publique boo xam ne dana am li ñuy wax équité te ñu koy wax ci wolof yemale waaye nag bokkul ak égalité muy tollale kon ñun dañu jàpp ne équité boobu dana baax que ñu doon mu équite salariale boo xam dana law ci fonction publique ba permettre ñëpp ñi nga xam ne tey ay liggéeykat lañu ci fonction publique ñu xool xam ne salaire bi ñu leen di fay méngoo na ak seeni profil te loolu dana doon source de motivation surtout que ñëpp xamoon nañ ne jàngalekat yi bokkoon nañ ci cible yi nga xam ne ñoom ñoo ci gënoon a souffrir kon tey équité salariale boobu correction bi ñu ngi ciy xaar nguur gi mu jël ci ay mesures yu ñu àddu jëmale ci ministre de la microfinance et de l'économie sociale Alioune Dione lay wuyoo siiwal na ne am na ay coppite yu ñuy indi ci koppar yi niñ ko doon euh, leble euh, mi ngi yëkki kàddu yooyu euh, gannaaw ba mu dalalee bureau association professionnelle des systèmes financiers décentralisés ca makaanam ba nekk ca Diamniadio ministère microfinance foofu dal nekk ñu teewlu ay kàddu jëwriñ wi Abdou Diouf Diagne Ahmadou Bamba Samb ñoo ko taataan waxtaan wi jot na am solo lool ndax lu bëri génn na ci ci ay jàngat yoo xam ne lépp luy jafe-jafe buy tax askan wi ci boppam mën a jote ci financement bi ba mën fee jëlee lu demee ni ndóol wala boog mën a am koom goo xam ne dina tax ñoom ñu mën a gis seen bopp ca seen yëngu-yëngu loolu génn na fi ndax am na ay points de convergence yoo xam ne am nañ ko yéen ñi nga xam ne yéen a nekk acteur système euh, financier décentralisé ndax association bi ngeen nekk ngeen xam yéen ay kuréel bi gën a mag ci fànn boobu bu ñu toogee di waxtaan ak yéen ñu xool yan jafe-jafe ngeen am te gis nañ ne jafe-jafe yi nekk na ci daanaka ñetti fànn yenn yi ci niveau institutionnel bi la yenn yi ci offre de service bi la yenn yi ci ñu àddu jëmale ci coowul suuf li am euh, Sénégal lëmbe ko jamono ji ba tax euh, kuréel gu yëngu ci wàllu boobu cadre de réflexion et d'action sur le foncier au Sénégal gis ni dañu war a def ndaje gu matale waxtaanee ko ba seet euh, nañuy def ba gën a moomaat sunu suuf si ndax ci seen i jàngat suufu Sénégal téeméer boo jël juróom fukk ak juróom-benn bi mi ngi ci loxo doomu bitim réew te bu ñu bëggee yegg ci souveraineté alimentaire maanaam mën a ba mën a dundal suñu bopp faaw ñu xool nu ñuy def ak euh, problème boobu ci forum bu ñu dëgmal ndaje mu matale dinañ ko waxtaanee Fat Bintou Konté Mohamed Dieng ci leeral. fii ci Sénégal 16 cent suñu suuf si moomuñu ko jamono ji mi ngi ci loxo ñi nga xam ne ay étranger la ñu mu di situation boo xam ne jéggi na dayoo doy na waar it. 650 000 hectares ci suñuy suuf dañ ko jox ko. fukk ak juróom-ñaari investisseurs yoo xam ne ci dëkk bi lañ dëkk wala ñu jóge bitum réew mais six cent cinquante mille hectares loolu c'est seize pour cent des terres arables de ce pays. ba tax ni nag suñu bëggee atteindre li ñuy wax souveraineté alimentaire faaw nag ñu def tout ba récupérer waat suñuy suuf si yooyu nag ngir mun a nag bay li nga xam ne moom la ñuy consommer. am souveraineté alimentaire fan lay tàmbali mi ngi tàmbali ci nga maîtriser. su suuf bi nga xam ne moo lay may souveraineté alimentaire boobu ñu fexe ñu tàmbali suñu suuf ñu daal di koy jël dundal ci suñuy doom suñu réew dafa toll foo xam ni il faut ñu mënal suñu bopp particulièrement ci wàllu li ñuy lekk li ñuy dunde nit ñu tay le biiram loo jël sa biir daal di koy dénk ñoo xam ni bokk leen intérêt wala bokk seen intéret méngoowul ak yow sa intérêt su fekkee sa intérêt en tant que réew mooy fexe nga mën a dundal say doom ay lépp loo xam ne daf lay gàllankoor jóge ci biti bu ñëwee daanu sa kaw na fekk nga mënal sa bopp. gouvernement du Sénégal yàggu dara jël na ay mesures yoo xam ne jëmale ko ci gestion foncière fii ci Sénégal mu rafetlu ko loolu ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy waa CRAFT le cadre de réflexion et d'action sur le foncier au Sénégal. ah bu ma déggee nag ñu daal di ne jiwu yi. ñu fexe ba lépp bépp téeméer yoo jël quinze pour cent ba vingt pour cent muy jiwu gerte wala muy jiwu euh, ceeb dinañ ko jox ci jigéen ñi dañ koy rafetlu ba aménagement maanaam fépp foo xam ni defar nañ ko pour que ñu mën fa bey mu daal jege dex bi wala bépp beneen sur eau de surface wala boog mu jóge ci suuf si muy ci forage wala ci teen ñu fexe quinze ba vingt pour cent daal di koy jox jigéen ñi daal dina nag dinañ ci teg quarante pour cent wu financement jox ko jigéen ñi kooku dañ koy rafetlu. ñu sax d'ailleurs dañoo fas amal benn forum le 27 et le 28 mai bi ñu dëppmal ci li ñuy wax la bonne gouvernance foncière bi nga xam ne dinañu permettre ñu am li nga xam ne moom mooy souveraineté alimentaire fii ci Sénégal. Fat Bintou Konté gannaaw euh, suuf si ñu wax ci géej gi ak euh, nappkat yi yeewoo Caaroy sur Mer di yëglu sàkku ci ministre bu bees bi yor wàllu napp gi na audit euh, bateau yi nga xam ni ñoom ñooy napp ci waaxu Sénégal ñu xam yan ñoo ciy jalgati ak di yàq ñu jëlee leen fii eh, seeni tawataki ak seeni saafara àggee nañ ko. Euh, Ablaye Pathé Anne foofu ca caaroy sur gannaaw laaj ak tontu gu dox seen diggante ñoom waa UNAPAS kenn ki ci ñu ci yëkki ay kàddu Medoune Diop ak Moustapha Diop lañuy wuyo léegi nag ñu ko ci gën a woo di ko ci gën a appuyer di ko ci gën a dooleel di wax ne ñun topp ci ñun ñu ngi ci ginnaawam que ñu wéyal audit yi. ngir ñu fexe ba lépp loo xam ne ne ay étranger la moo xam ay chinois la muy ñi xam ne dañu la def ay bata prête-nom ak accord de paix Sénégal ak Union européenne nañu ko gën a nañu ko gën a tengal ba nga xamee ne euh, loolu bu fi jógee yàlla mën naa dogal euh, géej gi mën a noyyiwaat pêche artisanale mën a dekkiwaat bu ko defee emploi yi mën a dellu siwaat parce que à l'heure actuelle euh, képp koo xam ne ni métier menacé wu na bu ñëwee ci côté pêche artisanale pêche artisanale mën na ko employé su fekkee ne organiser nañ ko normal ndaxte tey ku ne xam na ne chinois yi géej gu ñu dugg bu nu fa amee benn am at rek ëpp na te Sénégal li fi nekk si ay bato chinois bëri na. géej gi jamono yi la gën a ñàkk a jën jamono yi la problème yi gën a bëri jamono yi la immigration clandestine bi gën a am doole. commandant bi bindal la këyit ne la maa la yàqal soo ñëwee mu ne la duma la fay dama am assurance dama bëgg ngeen dem ca dem sama assurance. te ki nga xamante ni dafa lijjanti ji dem géej wala yaayam dafa lijjanti jox ko wala mu dem ci banque bi jox ko mu ñëw jënd matériel am nga yàqal ko ko alal dafa sax ci xol nit kenn du ko xeebal alalam. du dëgg coono boobu moom vraiment ñu ngi koy dund depuis 1900 parampampam ba léegi. ba léegi ci napp bi la des kayaar ak euh, nappkat ya fay xëyee seen yaakaar dafa tas ci géej gi ba tax ñu bëri ci ñoom. ci mbéy mi lañu ñu dellu ñii euh, ñoom mbëkk mi sax mooy na seen xel maara day taali waaye euh, ñu jàpp ni am na projet bu ñu dégg boo xam ni dana gën a suqali géej gi loolu dolli leen dekkil seen yaakaar ñenn ci ñoom loolu lañu ñu dénk Cheikh Anta Diop say latir reportage ci leeral li Kayar daan génn ci jën toll na ci fukki junniy ton waaye jamono yi fii ci Kayar daanaka napp gi dematul noonu jën yu bari daw nañ daa mel ni Kayar amatul jën loolee tax nag nappkat yu bëri ko dem ci wàllu mbayam dër mi ñu ci bëri te yéeg ci gaal lool tey dem ca Espagne ngir immigration clandestine waaye jamono yi nag bulu om ab kuréel gu jóge fële ca Canada moo dikk nag fii ci Kayar indi fi téeméeri junni ay récifs yoo xamante ne dañ koy samp ci géej gi ngir jën yi di fa mën a dund di fa mën a nen loolu lépp ngir fexe ba jën yi dikkaat ñii am benn projet boo xam ne nii day dundalaat xeer xeer yi nekk fii te dee woon wet ñoom lañuy ñuy dekkalaat dundalaat ko mais ànd ci lépp lu def ak mool yi te napp gi nag su jëmee kanam lépp jëm kanam ndax bu gi suqali kayaar naataat buggee gi suqali ko kayaar jëm kanam kayaar développé. moor Mbengue mi nga xamante ne moom moo yor kaddu nappkat yi di CLPA bu kayaar. nee na projet bu am solo la te dina tax jën yi dinañ dikkaat te ndaw ñi nga xamante ne waroon nañ ginnaaw géej gi daañu mën a dikkaat liggéey si. projet boo xam ne un milliard neuf cent presque deux milliards ñu di ko indi ngir lan defar waaye jën yi ngir nan lan mën a def ba jën yu gën a mën a bari si géej gi te Kayar lépp lu ñu mus di def ngir njariñal napp gi la kon war nañoo góorgóorlu ba lépp loo xamante ne si ñi ngi koy def mu jëm ci loolu moo li def ko seen yëf. maire Kayar nag di ci sàkku nag kilifa yi rawatina jëwriñ ji wàllu napp gi. mu yombalal leen ngir projet bi mën a woy fii ci Kayar. ca ndar moom pombiteer moo fa manqué ba tax njëkk yi seer ba jéggi dayo euh, jamono joo xam ni ñi ngi dëgmal tabaski bi ba tax ñiy yëngu ci wàll woowu rawatina commerçant yi ne na ci nguur gi jël ay euh, matukaay ngir pombiteer boobu euh, dellu si waat ci marché bi ci njëkk yu yéwén Ousseynou Diop Habib Seck ci leeral jamono ji soble bi ak pomme de terre bi gis ko ci marché bi lu jafe la ñii di ay jigéen ñëwoon ci marché bi di ndugg si ñoom ñoo ko xamle ñu jàpp ni gis lu ñu mel lu jafe la waaye tamit mbir yi sax dafa gën a cher. dafa cher cher na amul sax pombiteer fan yëpp dafa manqué ci bitig yi sax affaire yi daal boo mën a wax fu daal na daal yëpp a seer naa kilo bi dafa seer moo saako saako bi dafa seer moo tax bi seer. ci seen i gis-gis ak tabaski bii ñu jub ñoom seeni bopp dañu am ay jafe-jafe tax sax ñu yëkkati kàddu jëmale ko ci nguur gi. ngir pomme de terre bi ak soble bi ñu mën ko gis ci marché bi waaye tamit mu mën a yomb. yëpp dafa cher dafa cher moom soble bi cher na pomme de terre bi cher na moom daal yaa ma gën a xam métti na yëf yi moom métti na trop trop dëgër na moom. ñu ngi jëm ci tabaski bi dana waroon yombal yëpp waaye yëpp dafa cher. président entreprise des marchés yi nekk ci diwaan Ndar gi nag daal yiy yàbbi ci mbir mi mu jàpp ni pomme de terre bi li ko gën a yokk mooy agro business yi nekk ci diwaan bi laxas jaan ci mbir mi. pour prix sa kaw la war jóge ndax ñoom bi ñu bayee ba ñoral pomme de terre mag ñoo ngi doon jaay sac bi sept mille francs six mille francs tey bi ñu jeexalee indien bi camion yi njëkk génn tey sac bi foofu ma fay jar dix mille cinq cent kon marché bi war na fi jar onze mille wala onze mille cinq cent na mu gën sore su jógee si ki ko jënd onze mille si marché boo demee daa ko jaay lu onze mille cinq cent kon wàññi bi li si njëkk mooy nanu wax ak étranger yi ñu wàññi ñoom ñi am xam dañuy bay lu bare. jamono ji nag pomme de terre ak soble gis ko ci marché bi lu jafe la bu dee nag commerçant yi ñoom jàpp nañ ni ñi ko gën a yokk mooy ñi nga xamante ni ay entreprise lañ jóge ci bitim réew ñëw samp seen i bànqaas ci diwaanu Ndar Géej ngir xam-xam yu yees ci wàllu mbay mi mu gën a ñoŋ gën a yéwén ay euh, ndaw doomu senegal doon ci jongante ci édition bi ñu toll muy ñetteel gi directeur euh, ONG bi di AFER International nga xam ni ñoom ñoo tëgg jongante boobook neexal yiñ ci faral di jox xale yi ngir gën a suqaliku euh, suqali mbay mi fii ci Sénégal ñu teewlu directeur euh, ONG bi kon euh, laaj ak tontu dox digganteem ak Fat bintu Konté benn concours bu ñu lancé woon am na ñaari weer ngir mën a détecter jeunes yi nga xamante ne mooy ndaw yi nga xamante ni am nañu ay xarañte ci wàllum technologie ngir suñu agriculture buñ nee agriculture nag dañ ne agriculture aussi wax élevage donc ñu amoon ci lu ëpp euh, ñett téeméeri projet yu ñu jot jot ci biir loolu ñu def benn présélection am ci fukk ak juróom projet ci fukk ak juróom yooyu tey ñu woo ci juróom yi gën a xarañ tey ñu doon dem def benn compétition ñu wane seen projet seen xarañte ci naka la ñu gisee ñoom agriculture sénégalaise naka la mën a jëfandikoo jumtuwaay yu bees yi mooy technologie ngir mën a augmenter les rendements ñu dem ci foire de l'agriculture bi ci bësëm yu mujj yi ñu nekk nii ak euh, la fa am ci xeetu xeet yu baax ci wàllu mbéy waaye it ci wàllu euh, sàmm gi Ablaye Cissé ñu ànd ak moom doxantu biir Fiara ba seetaan. dëgg la Fiara bi bu ñu ko waxee wàllum sàmm lañu ci gën a jàpp ñu ngi fi wane it. produit yi nga xam ne yëpp Sénégal lañu ko defaree te muy meññee ci réew mi acteurs institutionnels yi banque yeeg institution yi ñu ngi fi. waaye ñi gën a indi kumpa ci nit ñi ci sàmmkat yi la ñu ne. ci wàllu race euh, côté béy andi nañu plusieurs race enclos bi la ne am na fa sahélienne laitière yi. am na fa aussi li ñuy wax euh, rousse de maradi ñaari races yooyu yëpp di jóge Niger. Euh, bu njëkk bi day yokk meew ci béy day yokk aussi seen hauteur sunu béy yi. bu dee rousse de marraine nag dafa dafa dafa gaaw a bare parce que day dem ba ñeent ba juróomi doom ci benn ëmb bi. ci côté xar am nañ fa ñetti race am nañ fa tchadien am nañ fa ouda am nañ fa aussi chawkin euh, bi ma mujjee noonu chawkin euh, race la boo xam race ndawal la mu ngi jógee Libye Xadafi moo ko fa dugaloon pour yokk volume xari tabaski yi euh, tchadien yi ñu ngi jógee comme ni ñu ko waxee Tchad Niger boobu moom sénégalais yi xam nañ ko bu baax parce que bi ñuy liggéey laadum jaar nañ ci tchadien. Ouda bi mu ngi jógee Mali boobu aussi sénégalais yi xam nañ ko parce que au début ci liggéey bu njëkk laadum Ouda da ci bokkoon. buur baa ngi nii moom Guzera la ñu koy wax di nag woo xam ne léegi nagi Sénégal la doonte bi mu fi njëkk a ñëw Brésil la jóge ñu yar ko fi yafal ko. ba mu toll nii. bon ci nag yi am nañ fi ay Guzera. Mhm. raasi ndawal la en même temps aussi raasi meew la. Euh, race la boo xamante ne dafa faral di euh, di rëy euh, di faral aussi di bare meew mais surtout race la boo xam ne dafa nangoo nekk ci sunu gox. parce que liñ di faraloon di am mooy dafa am race yu bëri yoo xam ne dañ ko doon jëlee Europe mais dañu doon remarqué ne chaque fois day am difficulté pour évoluer suñu gox da nga jël nag muy def ñeent fukki litre meew France nga andi ko Sénégal doo ci am fukki litre ak juróom en tout cas ci race yi jógee Europe. maintenant boo jëlee comme yenn races yi Gouzera comme lu mel ni par exemple euh, euh, Goudalilu lu mel ni par exemple Azawak Brésil la jóge Azawak aussi Brésil la jóge races yooyu ñoom bu ñu ñëwee lañ doon produire meew dañ koy produire. moom buur Gouzera bu demee ba mat mën naa peese ci tonne ak ñaari téeméeri kilo ci ndawal muy nag pexe yoo xam ne suñu sàmmkat yi ak vétérinaire yi ñoo ko def ba mu sotti. Ablaye Cissé bi mu noppee ci ndawal li dem na ci mburumin noonu laa ko mën a woowee ndax xeeti dugub bii di blé tendre ak dur waa ISRA def nañ ci ay jéego ci fiyaara boobu ba léegi Racine Kane yor stand boobu naka la ñuy def ba mu gën a ñoŋ Ablaye Cissé laaj na ko ko tontu na ci. da ngay gis lu ñuy wax céréale mooy dugub bësi dugubu suuna mooy euh, blé mooy euh, sésame mooy euh, maïs mooy ceeb. li ñu ëpp li ñuy laaj blé bi la ak sésame bi ndax blé xam nga fi mu ne nii moom siise siise yeeg ndaw kundaa yi dañoo bëgg mburu lool te xam nañu ne mburu mi moom blé bi moo ci ëpp donte ñu ngi def ba nga fexee ne léegi euh, bési bi dañ ko ci dugal à 30 pour cent mais 70 pour cent wala voire plus blé bi la te bële dañ koy jënd ci bitim réew ba mu ba mu bëri lool liñ ciy def ci alal ëpp na 300 milliards donc ñu ne tey ji bu blé boobu bokk na ci produit phares yi lu ëpp moom lañ ñuy laaj fii ndax dañu jàpp ne Sénégal am nañu juróom-ñetti variété blé yu bees ñeenti variété yu ñuy wax blé tendre ak ñeenti variété yu ñuy wax blé dur blé tendre bi nag moom moo ëpp lu ñuy jëfandikoo ci mburu mais en tout cas ñeenti juróom-ñetti variété yooyu yu ñu mën a béy yëpp Sénégal la ndax sénégalais doomu Sénégal moo ko créé Sénégal la adapté li ci nekk rek bu ñu fi ñëw dañ ñuy laaj fan lañ ko mën a béy ñu ne leen Sénégal yëpp mën nga ko fi béy ñu ne jamono ban jamono nag nga ko mën a béy mooy jamono yoo xam ne dafa xaw a sedd ndax ñëpp xam nañu Sénégal weeru novembre ba weeru déce euh, ba weeru janvier février mooy weer yi gën a sedd ñu ne kon da koy béy ci jamono yi nga xam ne weer bu sedd la kon boo xawekee ne béyoo ko nawet li muy tekki mooy da war a am irrigation da war a am ndox bu doy nga xam ne da nga koy mën a béy ci ñetti weer 90 jours mooy ñetti weer blé bi dina mën a ñor loolu doon li gën a fës ci xibaaru marax yi ñu amoon mbégte àggee leen ko ci kattanu morom bi di la ñaanal fanaan jàmm jërë ngeen jëf